baax awuusu billaahi mina sheytaani rajiim alhamdulilaahi rabbil aalamiin chers internautes chers abonnés maa ngi leen def asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen tey nag ñu fas yéene woon ñëw nag ngir waxtaan ak eh, suñu mbokk yi internautes yi nit ku nekk yaa ngi jéem a laaj nan laay def pour acquérir li nga xamante ni mooy paix du cœur jàmm xol balaa dara di xew dama la naan nga tal sa bopp nga toppatoo sa bopp nga def sa bopp priorité waaw xam nga d'habitude la plupart du temps da ngay dégg euh, muy coach yi wala muy ñu mun a doon di wax ni prends soin de toi defal sa bopp priorité mu xaw a nekk nag baat boo xamante ni ku ko comprendre danga naan ñii dañuy jàngal nit ñi pour ñu nekk égoïste pour ñu xalaat uniquement seen bopp. ndaxte bu ñu xalaatee jamono bi ñu toll ni tey dañu toll ci moment boo xamante ni boo jëlul soin ci sa bopp boo moytul di ko rëccu ndaxte dañuy wax ni nag. Euh, nit ki nafsi nafsi mooy li yàlla suñu borom di wax ni keroog yow ma yaa ku ne danga naan sama bopp sama bopp ndax lan ndax situation bi dafay jax lool. waaye dañ toll ci jamono bi nga xam ne situation bi dafa jax jax ba nga xam ne nit même bu la bëggee dimbali des fois day fekk ni xëy na tane woo ko wala xëy na moom la mu yor moo la ëppalee dafa waxul rek. ba tax na tey suñuy wax prends soin de toi mooy nit ki tey dañu war a xam ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni keroog yowmal xiyaam kenn ci ñun du kenn ci ñun du mucc du dugg aljana te rendre compte ci ñeenti yi bi ci jiitu mooy suñu temps suñu jeunesse suñu alal suñu santé <laughs> naka lañ ko dundee woon. kon tey bu ñu ñëwee tey ñun ci coaching bi nga xamante ni moom la ñuy def nga xam dañuy jël euh, li nga xamante ni tey mooy vole yooyu yëpp. mooy ñu xam ne suñu àddina ñetti volets yi wala sax ma ni cinq volets yi mooy volets yi fondamentalité yi suñu dund te suñ ko négligé dañ koy gis ci suñu secteur yëpp bi ci jiitu mooy lan mooy li nga xam te mooy suñu santé spirituelle maanaam suñu ngëm suñu ngëm-ngëm lan la ñuy dugal suñu biir psychologie lan la ñuy gëm lan la ñuy euh, nangu ñu ñuy influencer ak lan mooy dugg sax duñ ko yëg ak lan mooy li nga xamante ni tey moom mooy dugg suñu xel bi te duñ ko yëg ndax ku ne xam ne ni tey nit. ku nekk da nga naan ah man kenn du ma yóbbaale kenn du ma influencé mais on est tous influençables kenn ci nu ndax nit ki looy xool chaque jour wala koy fréquenter chaque jour su yàggee nga jël ci moom mu jël ci yow doo ko tax tey wax ni tey nit ki nga xam da nga naan ah man bëgguma musique du ma déglu musique sooy dégg benn musique chaque jour di romb même dee yow da daan wax ne bëggoo musique bu yàggee di ko woyantu te pourtant sa subconscient moo koy enregistrer c'est pas tey ngay gis doomu aadama même su fekkente ne néegal yi buggoo ko moytu ko parce que loolu mooy li lay muccal beneen volet bi nga xamante ni tey mooy bu ñu waxee suñu volet spirituel dañuy wax li nga xam ne aussi mooy suñu volet santé mbokk yi santé buñ ko waxee dafa laal lépp santé mentale santé physique santé émotionnelle santé bi nga xam ne aussi mooy santé relationnelle tey santé dafa nekk loo xamante ni dafa primordial ci jamono bi ñu toll parce que ku ne xam na ni stress dafa bëri te fu nekk lay mbëkkee stress si euh, mën nañ ne foyer conjugal bi stress ak say doom stress ak milieu professionnel bi te loolu su fekkente ni tey jéemuñu xam naka la ñuy gestionner suñuy émotion jéemuñu xam naka la ñuy gestionner suñu pensée ñuy focaliser tout le temps si lu négatif rek bu ñu moytuwul li neex si suñu dund daf ñuy rëcc nii te dund gi dafa gàtt te boo moytuwul yi nga xam ne mooy moment yu yu gàtt yooyu mais moment yu neex yooyu nga xam ne doomu moom la am ci dundam ndax nit moment yi nga am sa dund nga xam ne moo lay yi nga xam ne yaa ngi koy passé ak say njaboot ñu nekk xale wala ñu nekk mag moment yi ngay passé aussi sa vie professionnelle moment yi ngay passé aussi ci li nga xam ne mooy sa relation ak sa euh, vie conjugale moments yi ngay passé ak sa famille ce sont des moments yu primordial moment yooyu soo ko bëggee jël mu nekk moment de stress day nekk loo xamante ni tey doo ci bénéfice wu sa dund parce que après da ngay négatif bu mu ëpp bu ko defee tout le temps yaa ngi nekk si sentiment boo xamante ni c'est pas quelque chose d'agréable bu ko defee ngay wax pourquoi je ne suis pas heureuse fekk na bonheur li ko tàqatle ak euh, li nga xamante ni mooy stress dafa sew il faut que nga xam dissocier pour mën a xam ni que ngay gestionner say émotions. beneen bi aussi ñu koy faral di gis mooy li nga xam tey bu ñu toppatoo suñu santé mentale relationnel yi parce que tey relation mën na la impacter mën na yàq say émotion mën na yàq sa vision mën na yàq lu bari sa intérieur te lii nekk sa intérieur mooy refléter sa comportement te tey soo ci bàyyiwul xel tey di nga faral di entretenir relation yoo xam ne baaxul ci yow gënul ci yow te dafa lay yàq te tey soo fi feebaree wala nga sonn fi lu ñuy wax ah moom de nangam moom de sàngam commentaire dina bëri lool ba di nga am frustration parce que dinga ne ñii ak li ma sonn ci ñoom ñii ak li ma leen defal lii ak li ma sacrifié ci ñoom et pourtant soo demee ba soxla leen doo leen gis moo tax ñu ne sa bopp defal sa ndax tey doomu aadama tey comme ni ñu koy faral di waxee tey mère de famille quand tu ne vas pas bien jëlal sa bopp en priorité nga toppatoo sa santé beneen bi mooy comme ni ñu koy waxee économique indépendance financière dafa nekk lu am solo ngay jéem a di xool sa àddina naka ngay jéem a dundee dund boo xam ne dina équilibré sans pour autant ngay def loo mënul di dugg ci loo mënul wala defal nit ñi parce que da nga leen a rus wala say mbokk jotee pression parce que mënoo gàntu wala parce que dimbali nit lu baax loolu la ndax suñu diine ma koy cautionné waaye comme ni ma koy faral di waxee yàlla suñu borom sagam moom moo bind jaamam yëpp ba pare seetaan ñoo xam ne moom moo leen bind ñu pauvre te su ko neexoon ñu riche kon ñun amuñu benn màqaama pour rendre ñëpp riche amuñu mënuñu ko li ngay def kay mooy waslu àq ci sa am am fu mu toll ndax yàlla suñu borom nag li mu wax mooy laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa mooy def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw te léeg-léeg am na nit ñoo xam dañuy am tendance ne su ma nit ñaanee mënu ko gàntu sax damay dem lebbi pour jox ko gaañ nga sa bopp su ma nit ñaanee mënu ma ko gàntu damay jël li may dépense ma jox ko gaañ nga sa bopp lor nga sa bopp te yàlla sant la loolu kon jéemal di jàng di wax non bëgg naa ko waaye mënuma ah fi mu nekk ni dafa xaw a difficile de je n'arrive pas kon doomu aadama waroo culpabiliser wu parce que mënoo jàppale nit ndax loolu soo koy def doo am santé ak stabilité financière ndax bu dee lu dugg nga war ko gestionner ba weer dee nga joxe ko nga toog après yow di nga régler problème jàmbur yow nga nekk ci ay problème te loolu yaakaar naa c'est pas intelligent suñu jógee ci loolu mooy li nga xamante ni aussi moom la ñuy wax ne suñu jeunesse suñu suñu jeunesse suñu santé comme ni ñu koy waxee suñu wér-gu-yaram yàlla jox la nga nekk jeune nga am wér-gu-yaram ci lan nga passé sa temps sa temps gestion du temps parce que waaye <laughs> ñun africain ñun africain wala ñun yi dafa mel ni dañu am problème ak temps bañ nañ ko dañ naan heure ak boo joxee rendez-vous heure africain wala heure tubaab bi parce que rendez-vous africain mooy une heure après bu ñu waxee 5 heures demal 6 heures bu ñu waxee 2 heures demal 3 heures dafa dafa grave te yonent bi sa salaam dafa ne woon bokk na ci jikko hypocrite yi bokk na ci parmi les caractères de l'hypocrisie mooy nit ko du respecté waxtu su la joxee du ko respecté te ñun loolu dañ ko normaliser nit ki su fekkente ni sa temps gestionné woo ko xamoo la mooy sens de la priorité xamoo naka nga war a jëlee sa temps organisé wu sa liggéey kër sa professionnel sa spiritualité naka ngay amee créer de moments yoo xamante ni da ciy mën a relax noppaliku da ngay am problème. liggéey kër gi du jeex surtout yéen jigéen ñi liggéey kër gi du jeex da ngay def li nga mën li ci des na ne ko fa dégg. boo waree nelaw nelaw boo waree noppaliku noppaliku soo waree relax relax soo waree jëli doo du bon temps nga dem jëli du bon temps sinon da ngay risquer dëkkee frustration stress am benn colère parce lu tax parce que da naan lu ma defar ñu yàq ko te ñu fi nekk duñu ma jàppale. parce que boo heure boo duggee ci loo mënul soo paree doo ci am sentiment de satisfaction mais heure boo commencé def loo mën da nga am sentiment de satisfaction kon mbokk yi nañu bàyyi xel que doomu aadama bi def li nga mën wax loo mën daf ci bokk gestionner aussi xam ni ngay gestionner sa temps sa spiritualité sa santé li nga xamante ni mooy sa santé physique li nga xam ne mooy sa temps li nga xam ne mooy sa finance ndax loolu dafa am solo mbokk tamit mooy ñu gis cinquième point bi mooy savoir cultiver de relations yoo xam ne dafay bénéfique pour yow maanaam nit ki sa cercle d'amis en certain moment comme ni may wax naan sa armoire de temps en temps wala saison bu jot da ngay trier xool yére yi nga soloon yére yi ngay sol yére yi la xat yére yi la ëpp yére yi nga xam ni xatu la mais bëggatoo ko parce que amalatu la njëriñ nga trier libérer de l'espace ngir mën a accueillir lu bees ci nit ñi ci sa dund di nga gis nit ñoo xam ne amuñu benn benn benn importance sa dund loolu di la perteloo sa temps parce que dolli luñ la au contraire dañ lay wàññil yaa a relation yoo xam ne il faut nga ni nga définiraat ko ba nga xam ne dootu la impacté dootu la yàqal relations yi xam ne ce sont des relations nga jël ko jox ko li mu laaj aussi nga créer cercle d'amis boo xamante ni da ngeen di bokk vision dañ lay motiver et que dañ lay jàppale nga jëm ci kanam kon mbokk yi nañu fexe. prioriser li nga xamante ni tey mooy suñu cinq volets yi mooy jël sa bopp def sa bopp priorité def sa bopp comme ni ñu ko waxee mooy jël li nga xamante ni mooy sa santé mentale sa spiritualité sa économie sa santé bi nga xamante ne aussi mooy physique li nga xam ne aussi mooy say relation loolu soo koy toppatoo di ci bàyyi xel di nga moytu di gaañ sa bopp ndax comme ni ñu ko waxee sa sallam ni mu waxee woon sa jeunesse sa xaalis sa li nga xamante ne aussi mooy sa santé li nga xam ne aussi mooy sa temps lii dafa nekk lu primordial te nañ ci bàyyi xel parce que ku ko toppatoowul tu risques de te te doo dëkkee lu dul regret ñu xam ne nag euh, révolution dafa am kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy jëfandikoo suñu temps ni ñuy jëfandikoo volet yooyu yëpp ndax dafa am solo.